tole bo ñamata ron ini yela kolu ni koleya nata ini yata ñola ni diya nata ali yata ñola ni ye ko itol ko mi musola e eh, dandula la moti mhm. ye ma koy ko kenoje nteni bol ñama jang ko ibe ko ye koleya ko sto da min to mi yalon ko te tambila mhm. la sina nga foy ko nga kenu te nga kenu te nga tambi nu tenteng wala jammu tanga jammu tanga ketenteng fo nga tambi wala ni bi ja wala ñaan ci ndaw si na nga man maam ko li laa tudd maam ko li yow liggéey fii waa si jëndi weer waas waaw naa nga gisee liggéey bi liggéey bi mm-hmm. ah bu ñu def leen du ñu am lu ñuy dundal suñu njaboot mm-hmm. dañu jógee foo ñi ñëw fii pour ut bi mm-hmm. waaw naka ngeen day amee jën yi dañuy jënd ci gaal yi borom gaal yi bu ñu ñëwee ñu dem jënd ñu waas weer ngeen ban ban yokkute ngeen gis ci jaay e, jën yu wow yi la jën yu wow yi ku nekk li nga tàmm waaw am na ñi nga xam ne ñoom dañuy kii làkk wante ñun lii lañu tàmm waaw foo leen dee jaay Serekunda rek ne da ngeen di yóbbu. ñun de fii lañ dee bàyyi fii fii la ñuy bàyyi ñu ñëw jënd yenn saa yi nekk ay somme yenn saa yi weer di nga am client yàlla bula la xiiree nga am client. ñaata at depuis nga door business bi. ñaar fukki at. ka funti laa commencé ñëwati fii. ok seen euh, liggéey bi yan jafe-jafe ngeen ci di jànkonte jafe-jafe mooy ñàkk am xaalis bu ñu war a jël ñu jënd dañuy for foraatu yenn saa dañuy leb loolu yëpp da yenn dañuy dem raxas gaal ñuy ñu jox la yi yéen ku leen naroon a dimbale. Hmm. naka ngeen foogee ne noonu la ñu war leen war a dimbale. ah ku ñu dimbale de yàlla moo koy fay. Hmm. waaw bu ñu tamit. mun nañ toog ñu waxtaan ñu xam lu ñu war a def ci affaire dimbal bi waaw. toog waxtaan da ngeen am mbootaay. ñun waaw ñun joolaay nii ñun ay mbootaay lañu. seen jën yi naka la dee yàggee ba fekk yaaxuut comme. xorom boo defee xorom bi ba mu saf xorom bi bu safee du yàqu. ñuy mel ni yéen ngeen jar ne jar newu leen soo euh, fekk mu ngi seen loxo fii euh, ragalu leen dara. déedéet dañ koy def ci dàmb. bu ñu defee ni ba pare dañ koy def ci dàmb yi ñu duggal ko ci suñu magasin yi. day toog foofu ay weer du yàqu waaw. ok uh, weeram jën nawet. nawet uh, naka naka la dee eh, sonn dañuy sonn taw bi da taw ñi muur di muur yi muur bu tawee ñi muur bu taw bu bayee taw bi rek ñi muur yi nii la. yenn saa jën yi day saxee mm. ñi sànni perte. Mm. te ci mm. lii rek ngeen jàpp. ci loolu lañ jàpp. ujoo na njaat maanu ban ujoo jaa boot ku kanak di ku joo ko démonté man ku joo ku ngar bagage yoo leli esun si wala soleli esun upano esun bagase bugala bolel bobe babe e boro mu gale nyama me fang sit ode ulu joye de let mante ana senoli mu ana joye noli be chama no si wuli si gaba ni ke wuli ma ja joye mama banja si wuli si fegi o si wuli si bay bayti pre jona njaru banu jow botu ko jogo suun bagase ya ni ke fang wala si bot ko jogo tab tuman ko wolña bo gala bolel fam bo boyno mboy bo wara jiranbinoli fan i eh. waaw léegi mbaar bi ñun ñoo koy defar ku nekk da ngay dem nga samp sa place sa place bu ngay samp noonu da ngay yónnee nit mu ñëw defaral la ñetti téeméer ñetti junni la lay defar boo defaree ba pare boo ñibbee rek waa ji ñi ñiy sàcc ñu ñëw jël lu ñu soxla si kii bi da ngay xëy suba si ñëw nga fekk ñu jël alal dem nañu waaw mënuñu si dara parce que ñoo ñoom ay doole la ñuy jaay même tooj yi sax bu ñu defaree nii tooj yi ñun ñoo ko defar de bu ñu bayee ganaaw ñu ñoo jël jën yi ñu bugg ñu dem seen yoon euh, haketu mi bente batana kotoɓe ɓatare mhm. ñu mu kulinete mi yanon ko euh, gambiya musol ñin mofin dow musujo ma kata kala min kanol fileɓe ñiñare jaato fanan filaɓe ñiñare lefta fuya foñe min dow ko ɗum iba kaññaɗe ɗo ko ka jambanɗo kejeet nega jambanɗo keje ka jowe keje fo ay si na ɓura je ga wulinde ga ñamala nga wala do kuji sanyi na ko to dum ika watlo ste kana je fo birin suba fo tuloy boy le katara ni mbara yes ni mbara so kono suba fo nyi wato le kase ha abe ya katara na ku do ku wala katara na ku do ku wala ka ni ko be seyla nta motu la noje to man do be je te nyar fengo sana e dunji mota kalam ta sanyi ron ne be la ira na ko kon ani men ta ko be le bi ani patan patan sere masia mm -hmm. bare ja fen kanjo fana bige wo bige bara kanjo masia ja ani supame ha nga wo be bige um nyin do ko mune dungala nyin do ko fakan fam makoy mm -hmm. karu bi duniya be sila iman iman do ko dula sot i ko ibe siila ibe mm-hmm. Mm-hmm. bari ni wulita mm-hmm. ibe dula sotola ni mo hani mo fana jakalta nanata ya isalo ibe mindilal bari ni sita yalo ita sotola duñ def dara lu mooy indil leen waxtaan bi ñu faatu mata simaha amaloon ak Ami Jaata lady councillor of Serekunda Central eh, di focal person KMC anti amee ñu ngi laa nuyu si suñu programme bi ah, international women's day léegi tey mu jot ah, dañ bëggoon rek pour nga wax ñu comme que this time si kaddu buñ taxaw mooy eh, empowering rural women maanaam ñu dimbalee jigéen ñi nekk ci kaw bi yow naka nga gisee mbir boobu noonu ak coono bu eh, rural women yi jànku wante ah, alhamdulilah rabbi alamina jigéen ñi ci kaw gi ah, ni naa ne ci gannaaw parce que léegi coono baa ngee wàññeeku bu baax a baax si ñoom ndax réew mi ah mi di président Yaya ak jigéen ñi suñ vice président bi di Adja Aïssatou Ndiaye Seydi ñoom seen taxawaay yëpp ak Women's Bureau mooy jigéen ñi surtout ñi ci kaw gi coono gi wàññeeku ci seen kaw kon suñ toogee ba xalaat ne pour dem màggali bés bi si ñoom sax après ñu jagleen leen bés bi loolu lu neex la lu lu neex a dégg la xanaa di ñaan rek yàlla yóbbu ñu si ci jàmm ah ba pare liñ séentu si ñoom suñ fa demee ak ah, ci seen kanam ñu fekk ko fa waaye loolu neex nañu trop ñun ñëpp. yow naka nga foog ne naka la ñoo mun a teggee eh, coono bi nga xam ne jigéen ñi nekk ci kaw bi di wante waaw ah ni ñoo teggee coono bi rek mooy ah, ñi nga xam ne ñoo leen di teg coono bi mm-hmm. ñu jëm leen a waxal ñu teggi leen coono bi mm-hmm. ndax ah, jigéen ñi ci kaw gi boot sa doom dem ci àll bi taxa ni mata ñoo togga mm-hmm. a ah, sa njël. loolu yëpp jigéen ñaa ngi koo def jigéen ñi ci kaw gaa koy def te loolu ñi ko war a génnee mooy ñi nga xam ne ah, ñoo ñoo leen koy teg muy suñ suñ jëkkër yi ak suñ suñ kilifa ñu war a bàyyi xel jigéen ñi bu baax a baax yenn métit yi ñuy leen koo teggi loolu mooy li nga xam ne moo war a am te xam naa ne bu neexee yàlla gis nañ ne loolu mu ngi wàññeeku fi mu nekk nii bu baax a baax mm-hmm. ndax jigéen ñëpp ku ci nekk fi mu nekk nii yaa ngi xam sa wareef yaa ngi xam ni nga war a doxee yaa ngi xam tam li nga xam ne looloo gën ci yow mm-hmm. nekk jigéen ñëpp seen bëti xool nañ ci loolu mm-hmm. waaw anti ami ni ñi xam nañ la ah, yow tamit beneen si jigéen yi nga xam ne ñu am doole leen maanaam jënda activiste yi nii yow nag naka la sa ah, organisation taxaw pour dimbale ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi surtout ñi nga xam ne ñooy jigéen ko